nga xam ne moo des ci at mi loolu moo tax nag mu daal di dakkal accord d' entreprise bu 29 mars 2024 nga xam ne day jox ay avantages éditeur public national ndaxte bu ñu sukkandikoo ci note de service bi ba léegi amul benn couverture budgétaire boo xam ni mën na supporter boobule impact. ci seen wàll nag liggéeykat yi fas yéene ñu bank seen i loxo ñu ngi waajal nag ab mobilisation ngir laaj seen àq ak seen yelleef. jërëjëf Matar Bari addu ci wàllum wérgu yaram kuréel gi de F2S nañ ba futtu yéen ci ay doxalinu ah, ki nga xam ne rek moo jiite nag wàllu wooble ndax jàpp ne daal anam gi nga xam nu la tëral ne yëf yi du dëgg du yoon. jamono ji li gën a fës sax ci euh, jafe-jafe yi mu nga amee ca centre Talibou Dabo ñoom nag waa f 2 euh, sàkku ci yaram mooy ñu séq euh, waxtaan. taalibu daabu buñ gisee mu bind këyit wax ni yenn wax ji ci taalibu daabu te lépp ñu jàpp ni ay ay ay manipulation moo ko lal jàpp ni ay ay wuruj ñoo ko lal te bañ a toog waxtaan ak les conserné pour trouver problème surtout bu ñu xamee ni problème bi jiitu na sax moom ñëwam bi au niveau du secteur de la santé loolu waxtaanee nañ ko ci ci ci ci rencontre bi wax nañ aussi dara beesu fi ndax lépp li nga xamante ni wax nañ ko teg nañ ko fekk na mu doon protocole bu ñu signé woon ak gouvernement bi dem dañu wax ni état continuité la donc ministre de la santé bi fi jógee signé woon nañ protocole boo xamante waroon nañ ko doxal ci wàllu plan de carrière wu yi nga xamante ñu ngi nekk ci secteur bi surtout infirmiers d'État yi sages-femmes yi ak techniciens supérieurs de la santé ci ko loolu ñu constaté que collectivité territoriale sunu camarades yi nga xamante ni ñoo nga fa depuis ñaari at ñu ngi ci grève boo xamante ni ci seen dëgg lañ ko teg ndax accord moo leen jox li nga xamante ni moom la ñuy laaj ginnaaw bi ñu négocier ak gouvernement bi lañ trouvé accord ni ñii war nañu am lii ñuy laaj te loolu ñoom ñi ko seq yor nañ solution bi nga xamante ni bu ñu toogoon waxtaan ak autorités yi dinañ gis solution. Ngone Ndour daan nañu koy tabbaat ci bopp euh, SODAV jàpp leen ne ginnaaw assemblée générale boo xam ne ki démb ci ngoon leen ko amal. jàpp leen rek ne ci fanweer ak juróom-benni membre yoo xam ne ñoom ñoo waroon a voté daanaka fanweer ak ñetti yëpp moom Ngoné Ndour lañu ñu daldi sànnil xob. bile yoon nekk ñetteelu mandaam ci bopp SODAV Ngoné nduur di wone rek mbégteem ci anam bi élection yi amee wante tamit yaakaar bu ñu am ci moom. parce que am na liggéey bu nga xam ne ni que ne def nañ ko fi ndaxte bi ñuy jël société bi 2016 société bu sonn lan ñu jox donc ñuy liggéey ñun ñëpp ànd ak conseil d' administration bi ak euh, Ali Bathily ak ay ak ay agent ba egg si fi ñu ak euh, ak tey nag. mu daal di gagné ci lu leer naññ doon janoog Ousmane Guissé ñu gën koo xam si Djibi Guissé tax na Ngone Ndour di xamle nii faaw rek ñu indiwaat ay coppite yu bees. fii nag toog place bi ma toog dama ko mérité dama ko dama ko liggéey. moo tax sama ay nawle yi nga xam ne dañ fi nekk ñu gëm ne ne que ne mën naa leen yeggalil ma ci mbir mi ma yeggalil ko nañ ko def rek en toute démocratie ku nekk nangu la nga nangu ñu àndandoo liggéey ñoom ñaar ñi lee ku si nekk di woote ngir rek ñu daal di ñëw ànd ak société bi liggéey ngir rek ñëpp mën se njëriñoo. ah c'est un travail il y a pas deux clans. benn clan moo fi nekk. li fi am solo mooy que amélioration condition de vie acteur culturel yi na am. Mhm. parce que dañoo fal on a des comptes à rendre. on a des comptes pour man dañu war a jàppante parce que mbirum culture du xeexante bi si ñun xeex bi si ay mbir yu nu am yu nga xam ne ni que ne soxla nañ ko ci ci état bi wala soxla nañ ko pour teg ko ensemble pour que affaire bi mën a mën a mën a nekk lu nga xam ne dina jëriñ ñëpp. ci 36 membre conseil d' administration bi. 33 ñoo daal di votel Ngone Ndour ngir rek société bi mën a wëyal liggéeyam. làmb nag euh, daanaka dafa am nu ñu ko euh, tëggee euh, waxtu woo dugg nga daal di koy dugg ñu gis nag ne moom Ada ci tëyeef dafa toog ba waxtu mu waroon dugg daal di passé loolu am njeexital itam ci guddee bi nga xam ne moom la combat yi daal di guddee loolu waral nag ñu daal di teq aslëf si li nga xam ne moom mooy koppar gi ñu ko naroon jox ba noppi itam daal di koy teg daan boo xam ne atum lëmm dina ko toog du sëgg. addu jëmale ba tey jii ci wàllum uh, tàggat yaram uh, bëri doo yóbbu ñu ci diwaanu uh, Casamance jàppale na daal foofee nag ci diwaanu Ndiébérène ca Basse Casamance jigéen ñi nag ñoom am na rek pàcc gu yaatu goo xam ne am nañ ko ci wàllum làmb. làmb googee sax daanaka xawoon na nax saay jamono ji mu mel ni dañoo taxawaat ci tànk daal di koy suqali ba tax na nag suñu ndaw lañu ñu teewal ca Casamance Sambou Dieng Sakho doxantu woon foofee ca Ndiébérène ngir am ci lu leer. bëre jigéen yi ci Casamance yàgg doon aada bu am solo lool ci population bi la gannaaw aspect culturel am bëre bi am na rôle bu am solo bu muy joué ci wàllum jàmm. te cosaan la li nga xam ne yàggoon na am da doon am ñun bañ nekkee jeune dañu doon dem euh, di bëre entre quartier parce que bu njëkk bi ñu dañu doon jël ñu dem rencontré ñeneen ñi ñu luttee euh, ça sa sa san permettre daf ñu doon permettre ñu jàppante ay xarit. kii la rek sport la rek comme yeneen sport yi rek sport muy defee suñu plaisir. noonu la tamit lutte bi def suñu plaisir suñu aada la moom lañu xam comme sport. Casamance nag yàgg am ay champion ci bëre jigéen yi ñenn yi jot nañu représenté Sénégal ci ay compétition yu mag depuis boobu le génération bëre jigéen yi dellu na gannaaw bu baax ci Casamance. parce que dañu gis ni euh, bu njëkk ba amoon na ay champion yu bëri fi surtout fii à amoon na ay championne euh, loolu ñooñu bu ñu demee. tey ñu décidé ni dañuy ñëw Diembéra pour ñu relancer euh, la lutte féminine au niveau de Diembéra pour pour que la petite catégorie ñoom tamit ñi xam ne la lutte féminine c'est important te am na fii ay talent il suffit juste de les encadrer mais Diembéra est regorge féminine ngir suuxali bëre jigéen yi ci Diembéra ak Casamance ñoom ñoo ngi tàllal loxo ki ñu dënk wàllu sport ak waa CNG ñu jàppale leen. bëgg naa vraiment gars yi CNG ak ministre bi. bëgg naa def jigéen ñi Jembereñ ñi bëre comme or ñoom ortage jeeju en tant que judoka bëre bi surtout côté jigéen yi quoi. bëre jigéen yi ci Casamance doon pilier culturel bu am solo lool waaye tamit di gën dëgëral jàmm ji si diggante dëkk yi. jërëjëf Samba Bodian Sakho addu jëmale ci tënk ci xibaaru tàggat yaram euro 2024 ni ki tey ji nag mooy ñett juróom huitième de finale tey ji leen ko jeexal jàppale ne bu ñeenti waxtu jotee ci kanam tuuti Roumanie dina ci jàkkaarloo ak Pays-Bas juróom-ñaari waxtu daanaka Autriche ak Turquie yéene jàkkaarloo. ni ki démb itam euh, Cristiano Ronaldo ak Portugal bi nga xam ne mooy dëkkam euh, les tout rek ñu daal di euh, ñibbi ginnaaw ab penalty boo xam ne moom Cristiano moom moo ko daal di raté laataa ñu dugg ci li di prolongation yi noonu la ñu demee nag ba tiro bi ñu daal di jël raw gàddu gi moom mi raté woon penalty bi moom Cristiano. tax ba ñu daal di gagné Slovénie euh, ci euh, tiro bi. États-Unis mi nga xam ne daanaka ci tirage au sort yi moo génn ci pàcc bu njëkk wa daanay toog nag euh, ci joŋante wile mu nekk nag loo xam ne la muy undu neexut ci ñaari at rek laata ñu amal coupe du monde bi nga xam ne bokk nañ ci réew yooyu ñu koy amalee digganteem ak Canada ak Mexique. bu bi nag Mathias Oliveira moom moo ko daal di dugal ci soixante sixième minute loolee rek tax nag ba ñu Uruguay daal di jël ndam li féete nag ci boppu classement groupe B bi ak neuf point yoo xam ne dajale na ko ginnaaw bu ñu eh, amalee jongante yi yu pàcc bu njëkk boobu lépp eh, compétition eh, sélection bi nga xam ne nag Marcelo Bielsa moom moo ko daal di yóbbu moom nag. Euh, dañ ko suspendre sax nag lundi euh, ba tax nag ci tribune la toogoon di seetaan ñoom ñoo jiitu ci groupe C bi ak euh, trois